Wal faj rek tuun mën na de. bàyyi ba la na de. aco. gaa yi ñu ngi démarré nag. gaa yi jërë ngeen jëf ñu ngi jéglu bu baax mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di amal mbégte tey teew ci biir Pikine tey mbokk tey bu ngeen gisee ñu teew fii ci biir stade Alassane Djigo bu Pikine li ko waral mooy Gaston production dafa am bés bu mag muy bésu le premier janvier muy bés boo xamante ni date historique la diggante Modou Lo ak Boy Niang numéro 2. tey le fils de De Gaulle la ñu si fii. ci biir bi mu am open press bu mag boo xamante ni dafa war a wax ak moom jàkkaarloo Sénégalais yi wax ak ñoom bis bi nag bis la boo xamante ni président de la république moom lañ ko tuddee Macky Sall maa ngi lay nuyu bu baax a baax. allo allo maa lay fay avant dara maa ngi sant waa kër Cheikh na Cheikh Sadou Abi maa ngi sant waa kër Cheikh Lo bu a a baax maa ngi nuyu sama waajur bu baax a baax a baax maa ngi nuyu waa Pikine di kontaan waa Pikine bu baax Pikine yi maa ngi ziar gars yi bu baax a baax a baax maa ngi lay nuyu bu baax maa baax. ngay bëri titre roi des arènes ki ngay bëril dugg si na Pikine duggaat Pikine miin na Pikine jëli fi ay victoire yoo xamante ni histoire da koy ñu ne Boy Niang moo ko fi def te Boy Niang combat yi nga mujjee bëri nga ñu bi nga bëri combat bi combat staff la wala combat bi combat Boy lu ci moo koy combat bi combat Pikine la combat bi combat doomu Pikine la dinaa koy bëri incha allah bu soobee yàlla comme li nga waxee rek adversaire bi dugg na fi dugg na fi waaye comme li ma wax bilaay jooy jeex na bilaay walaay jooy jeex na yàlla xam na ko di wax ni yàlla xam na ko allo di wax ni yàlla xam na ko dugg na fi duggaat na fi comme ni nga ko waxee waaye wax naa ko ko wax naa ko amateur yi wax naa ko ñëpp incha allah jooy jeex na bilaay jooy jeex na bilaay ñu président ñu président ñu kontaan bu baax ñu kontaan bu baax a baax Modou ñu ngi koy nuyu bu baax di ko déggee waaw doomu Pikine la moom Isaaka Diop Abdoulaye Timbo Thierno Ndomba Amadou Diarra bu ñu limee du ñu matal waaw ñëpp Abdou Karim Sall waaw ñëpp ay doomu Pikine la jàpp nañu bu baax a baax a baax ñu ngi bu baax di ngeen def boo ñaa ngeen ko defal mais doomu bi di ngeen ko defal ñu leen bu baax a baax jàmm ci yéen kontaan nañ bu sama doom sama doomu ndey bi ñëw yëpp ak ñi ñëwul parce que ñi ñëwul parfois daal tënk leen waaye xool bi ak xel bi yëpp doomu bi na maa leen a baax ñu ñu ñu ñëw ci ñu xool caméra yi aussi ku ne xam na ni bëri muuru xarañ lu yombul ndax Modou pour nga daan ko il faut nga taxaw physiquement parce que ku ne xam na ni euh, Modou Lo physiquement dafa taxaw mën naa tenir combat une heure de temps te du sonn est-ce que physiquement parlant préparé nga combat bi physique. boobu xoolee bu baax par rapport ak face à face jëf yi xam nga amoon naa poids boobu bi dañ dem pare pour bëre une heure de temps intense kooku une heure de temps intense xeex bi. ka am 5000 instance xeex bëre su bëggee ñu def ko incha allah rabi. nga jàkkaarloo bi Modou Lo def loolu. dama ñu def 45 minutes yu intense temps 45 minutes di xeex di bëre di xeex di bëre incha allah rabi. Modou Lo bu la woowee nga jàkkaarloo Modou takk jéeg yi son man amul ku ma sant dagg jéggi si moom ak ku mu mënti doon man doomu Pikine laa damay wax ni sax boo xoolee nga dem nga dem ci ginnaaw tuuti boo bëree Sa Thiès ba pare yàlla may ma ndaw Modou Mbaye seen confrère daf ma daw fekk ma ci géew bi ma wax wax mais ba léegi déggoo leen ni ñu gën a dem ci xam làmb ñu gën a dem ngeen gën a xam kan mooy Boy Niang incha allah rabbi yi ñu ne président Modou Guèye dafa am mu ci bëggoon sànni après ñu eggale question yi. waa salaamaaleykum waa tey suñu doom moo taxaw war a jëli ji couronne bi indiwaat ko biir Pikine te suñu yëf lañ wax leen ñun ñoo fi am booy Niang Boy Niang ñoo ko fa am te rafet nañ jot si yow xam nañ ne bu dee jom la bu dee fula la bu dee fayda la bu dee fit la bu dee ngor la. di nga ko wane ca làmb ja di nga ko bëre di nga ko daan andi ñu fii victoire Boy ñoo ko fa am ndam li Pikine la kon vive Boy Niang vive Pikine ndam rek ci yow jàmm ci yow jërëjëf président Mamadou Teye waaye sama dernière question mooy Boy Niang Modou mu dagg cër yi wut si la ku ne xam na ni Boy Niang numéro 2 dafa aay ci attaquant lan lañ mën a xaar ci Boy Niang foofu. man lépp laa ay su ma ñëwee baax na su ñëwee baax na buy dajee baax na bilaay walaay lépp baax na. tey beneen Boy Niang laa gis depuis bi nga dugg si ci biir open press bi ba léegi beneen Boy Niang la ñu gis beneen kanam la ñu gis mu mel ni Boy Niang dañ ko xaxtal ci combat mu mel ni tey boo sañoon tey bis bi dëkk muy bëri. waaw parce que dafa xew waaw parce que dafa am ñu may bëree. te ñu may bëree dama dama leen bëgg ñooñu sama traite muy waa Pikine incha allah. jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen bu baax di leen siyaar fu waaye nekk rek si réew mi question daanaka xaw nga koo laal ci Baye Balla dañu gis première face to face mu andi bu bëri deuxième face to bi nga wàññi ci tuuti tey ñu gis ne da nga dégraissé wu lu bëree bëree bëri ñu gis booy ñaa bu mobile lan moo xew si diggante bi dañ la tëj ruq da nga fas yéenee cons da nga fas xeex da nga fas jihaar ba wàññi tey ni nga tolloon ba tollu nii. moom laa wax Baye Balla léegi nee su bëggee dama pare pour ñu bëree 45 minutes intense xeex bëree xeex bëree ba amateur yëpp jóg taaw incha allah ñu ñaan suñu boom defal ñu ndam. adversaire bi ngay bëreel saa bu masee bërëm bër ba mu passé 5 minutes bër ma du daal. waaw dafa ñoo ñoon du booy capaa cóon bi ngay waxal bu jeexee rek jeexee bi daal la